dafa amoon fi ndox mu du ndox taw bi doon jaar pour egsi ci lagune bi dafa am lu fay baare parce que zone bi dafa bëri ay dëkkuwaay dafa bëri aussi lu ñuy wax ay activités agricole am na ay exploitation agricole yu ci nekk donc yu ci bëri dañ ko boucher woon léegi nag ci projet bi dañ fa defar ay pont defar fa ay ouvrage yoo xam ne bu ndox mi ñëwee dina mën a jàll pour que ndox mi nga xam ne ndoxu taw la moo doon alimenter aussi lagune bi man di egsi ci lagune bi et au delà de ça lagune bi dafa amoon ensablement suuf bi def ko doon envahir ba nga xam ne nii il a fallu que ñu def benn dragage pour man ko restaurer ñu bëri bu ñuy ñëw Somone lagune bi moo tax ñu fiy ñëw. donc day jouer benn rôle euh, écotouristique bu bu bu am importance. di jouer benn rôle socio-économique aussi parce que jigéen ñi nga xam ne ñoo dëkk fii dañuy napp ci euh, laguine bi ay yoxos ay paañ ay yéet lu ne dañ ko fiy def euh, mais également touriste tourisme bi lagune bi daf koy développer.